maa ngi sant bu baax aussi sëñ bas Abdou Khadre fekke ngeen dalal gi ma dalal enregistré ngeen ka du ci insisté waaye ñëpp xam sama digganteeg moom te wane na ka tey nag li xew si réew mi def naa sama loxo yu bëri ndax ay kilifa diine yu bëri bëggoon nañ ko ay nit ñu baax yu bëri bëggoon nañ ko ñëw si man jamono bi yàlla defee ma jege lay wadd ñu wax ma ni ma nanu dox loolu ndax dafa nekk taaru Sénégal que président bi nga xam ni moo fi jóge ak président bi ko wuutu ñu am jàmm loolu bi mu amee ci jamono Abdoulaye wàdd ak président Abdou Diouf àddina bi yëpp a ko doon rafetlu yàlla na yàlla def lii aw si yoon woo xam ne dana doon njariñu senegaal képp kenn bañ ci gis lu dul sa njariñ moo tax maa ngi ndokkeel bu baax sëñ Muntaxa nee naa ko xéewal gu yàlla wàcce la sëñ Muntaxa moo tax yàlla may ka kàrtan ak yiwu mu def lii nee naa ko li nga ëmbal jaam yi si mbaax si yiw ak bëgg gi nga bëgg sa boroom ak taxaw bi nga bëgg liggéeyal sëñ tubaab moo tax nga am lii jubale leen ñoom ñaar juboo boobu nag yàlla na yàlla def muy doon njariñu senegaal njariñu Sénégal Sénégal mën si gis boppam. Euh, jamono ji yaakaar nga ne euh, libéraux yi dinañu retrouver est-ce que yow tamit ah, euh, xam xam nga daja da bokkoon bokkoon ay mbir yàlla def ki nekk dem sa wàll ngeen dajewaat loolu dafa rafet man de gisuma si benn jafe-jafe su su amee. wax dëgg yàlla dana dooleel famille libérale moo tax loolu gisuma si benn jafe-jafe. pare nga pour ñetteel leen. Euh, euh, euh, man nag xam nga fi ma toll ñëpp xam sama position moo tax nee naa nee naa jërëjëf sëñ Mountakha ndax yàlla def na man dan ma doon tuumaal tuumaal goo xam ne àddina bi yëpp dégg ko tey nag yàlla seetal na sama der dem naa élection jóge fa ànd ak opposition.